gan euh, Cheikh Issa Sall salaamaaleykum. maaleykum salaam suñu Babacar maa ngi lay ziar ñu ngi lay delloo ziar di la gërëm ci teewaay bi di nuyu Georges Dethié Diop mi ñuy àndal ci waxtaan wi magistrat nga waaye euh, yaa jiite euh, yaay DG directeur général agence de développement municipal ADM ci wàllu politique nga jiite am dem mouvement boo xam ni. Euh, buy jàppale Macky Sall la am dem mi ngi tekki agir avec euh, Macky pour le développement de Mbour foofoo sa cosaan fa nga yëngoo ci wàllu politique sëtul nag fës lool fan yi guléet ñu lay dégg ci rajo Mbab télé bi coowal man Mansour Faye ak euh, Ousmane Sonko jibee ba léegi ci ndaje mi Ousmane Sonko weddi woon waaye mujj gi nangu na ni am na waaye boobu fekkagul muy politique yow nag yaa fexe woon ndaje moomu am diggante man Mansour Faye ak Ousmane Sonko Euh, euh, li nga xam ne nag moom mooy euh, coow li mooy dañ ni yow yaa ko fekkee waaye Ousmane Sonko weddina na ni moo sàkkoon ndaje mi nee na yéen ko wóolu woon loo ciy loo ciy leeral la ko tontu. waaw maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu auditeurs rajo RFM yëpp di nuyu waa Sénégal yëpp. Euh, di wax ne comme ni nga ko xamee ñu ngi nuyu tamit waa mbuur bu baax parce que mbuur mooy suñu cosaan fa ñuy defee lépp li nga xam ne mooy li ma interpellé léegi mooy diggante coow li amoon si affaire audience su Ousmane Sonko ak Mansour Faye man sama sama rôle si bi audience bi di am comme ba léegi nii moo nekkoon donc pour audience bi ausman Sonko sama sama sama xarit la moo ma sollicité woon. pour gis Mansour Faye pour mën a àgg si président parce que amoon na soxla bu mu amoon pour président man en tant que euh, xaritam ma jàppale ko si fexe ba Mansour fay recevoir ko si bureau je crois que bu fekkoon ne Mansour Faye moo doon wër pour euh, rencontrer Sonko xëy na kër Sonko la koy dajeeg moom wala si restaurant wala feneen mais comme Sonko moo doxal tànkam ba ñëw ba biir bureau Mansour Faye euh, mënul defendre ne Mansour Faye moo doon wër pour rencontre ko wala yu demee noonu loolu mooy première chose deuxième chose bi mooy audience entre deux sénégalais man dama si gisul problème bu tax Ousmane Sonko waroon ko weddi weddi bu metti boobu boole si nag ak euh, moom ak ay nitam yenn responsable mi si réseaux sociaux yi boole ko ak saaga yo ñàkk teggin goo xam ne si dëkk bu mel ni Sénégal man yéemoon na ma ba ba nga xam ne tuddoon na ci sama tournée ki fekkoon mbir mi c'est un fonctionnaire un magistrat secrétaire général délégation ñëpp xam ne Cheikh Issa Sall la man suma gis si sama àdduna nombre de saaga yun ma saaga man si réseaux sociaux yi ndax tout simplement wax nañ ne man maa fekk benn audience yooyu yëpp nag ay mbir la yoo xam ne man daf ma daf ma jaaxaloon lool lool lool lool moo tax euh, li nga xam ne def naa ko ci également après mooy mooy seede dañoo nekk si dëkk bu tudd Sénégal boo xam ne dañoo am ay mag yu baax yu fi nekk ñuy roy si ñoom du déglu seeni wax di ko di ko di ko jëfee mu am si mag ñooñu ku tudd ku tudd sëñ Abdou Lahad Mbacké ñuy ñaan yàlla tax ñu si barkeem mu ne woon bu sa xarit tooñee wala mu wax lu dul dëgg boo seede nekk yow yaa tooñ wala li nga wax du dëgg buñ nekk après dañ lay rey wala dañ lay dóor ndax li nga tooñ wax ndax li nga wax lu dul dëgg nga ne leen boole leen ma ci bu ko defee ñu mën la see ruus ñu bàyyi ko man sama taxawaay si mbir mi mooy gis naa ne Ousmane Sonko lu mu wax du dëgg parce que man seede laa si audience bi nga xam ne man maa ko jàppale woon pour mu gis Mansour Faye ma seede rek ci sama akulaay taala ne audience boobu am na te bi ma ko waxee si suba gi moom si ngoon gi reconnaître na ko lu muy gën a dugg si weddi mi ak yooyu nag di gën a di gën a dugal boppam parce que euh, dëgg moom dëgg dong lay mën a nekk diw moo ñëw di ma seet pendant deux jours pour am ak man audience ba pare diw moom nga dem fekk ko si bureau loolu xel mu xel mu rafet mënu ko mënu ko dégg beneen bi mooy mhm. beneen bi mooy bi mu duggee si explication yi mooy dernièrement bu mujj bi euh, def naa ne Sénégalais yi tamit euh, yàlla may na leen xel yàlla may na leen ràññee ba explication yi mu dugg boo ko dégloo di ko xool bu baax da ngay jàpp ne maanaam dafa mel ni Ousmane Sonko respecté wu sax Sénégalais yi premier chose si bu muy expliqué nee na bi muy dem ci audience bi il était secrétaire général honoraire du syndicat des impôts et domaines un secrétaire général honoraire ban mission la mën a doxal syndicat bu budul bu cérémonie amee ñu tegal la siis nga toog ba muy dem est-ce que secrétaire général en activité bi yëgoon na ko est-ce que xamoo na lu mu fay uti est-ce qu'il avait une mission boo xam ne nii dañ ko ko dénkoon ne ko demal nga doxal ñu lii loolu c'est c'est la première chose. deuxième lu mu doon dox si Cheikh Issa Sall. waaw ginnaaw ginnaaw nee nga yëf yi am na te euh, am na lu mu doon lijjanti si du mbiru syndicat. Euh, lan la wut si woon ci Mansour Faye. xaaral ma àggali si loolu rek donc mbiru syndicat bi moom day day taxaw na le parce que syndicat bi amoon na secrétaire général bu tudd monsieur Pouy kooku bu amee lu ñuy dox ci syndicat bi moom moo ko waroon dox. Elimane Pouy beneen Elimane Pouy beneen bi mooy nee na c'était un inspecteur bu doon contrôler ba gis ne président Macky dafa am société bu am ay terrain mu ne si diggante boobu si lañ ko oowee pour mu ñëw pour ñu xool nu ñuy waxee moom nangam nangam man de je suis contrôleur. je suis de la cour des comptes loolu mooy sama profession euh, contrôler nit ba envoyé ko commandement ba yónni ko ay convocation di ko vérifier ba pare jaar si suuf di ko jéem a gis loolu bokkul si éthique bokkul si déontologie loolu c'est contraire à toutes les normes d'audit man yi ma jàng ba ba ma commencé di contrôler ak léegi yaa ngi contrôler nit yónnee nga ko commandement gis nga ay mbir yu mu def yoo xam ne jaaduwul ba pare ngay jaar ci ay mbokkam pour gis ko loo koy doyee loolu tamit moom war na ko wax sénégalais yi parce que ci biir bi mu demee live am boobu noonu ci Facebook bi wax na ci lu mel noonu. anticiper na également ci ne xam naa bu subaa rek dinañ wax affaire tey bu njaay bi li tax muy anticiper noonu dafay bëgg di dox toujours ci xelu nit ñi te loolu baaxul gis nga Sénégal c'est un boo xam ne ay nit ñu yàlla baaxee. si wàllu xel ak xalaat ñoom ñoo fi nekk loo fii def rek yéemal transparent bu baaxee nga jël say responsabilité bu bonee nga jël say responsabilité parce que lu waay di ragal ba di ko dox guddi ko bàyyi parce que fii lépp ay mujj feeñ. lu tax nga ni dafa anticiper ci mbiru tey bu Ndiaye di njiital cadastre ga woon nga xam ni euh, buñ fàttali ko topp nañ ko sax ci mbiru Karim Wade lu mu seq ak Ousmane ak lu ko Ousmane Sonko doon doxal si foofu kon ci seen i kàddu. xam nga ñëpp ku nekk ku nekk si dëkk bi fii xam nga diggante. tey bu Ndiaye ak Ousmane Sonko loolu dul na nit ñi inventé mais Ousmane sonk moom moo ko wax moom moo ko wane moom moo dem see émission moom si boppam moo ne moom moo fay avocat yi nga xam ne ñoom ñoo doon défendre euh, tey bu Ndiaye loolu wax na ko si benn émission bu mu séq ak Pape loolu nag c'est totalement contraire ak principe yi nga xam ne ni moom lay wane fi mu nekk ni maanaam di tàllal loxo naan man dama set di joxoñ ni ñi naan leen da ngeen lëndëm da ngeen a triant ay sàcc ngeen te joxoñ nag dafa baaxul sam papa dafa ne moo toujours ne ma moytul di joxoñaat parce que boo taalalee nit loxo ne koy da ngaa bon sa ñetti baaraam yi ñu ngi la daan yaa ko gën a bon ñetti yoon moo tax nit ki da nga war a maanaam wàññi sa bopp rek xam ne ay insaan lañ insaan mooy koo xam ne dafay juum dafay def erreur dafay def lu nekk. mais mais lan moo nekkoon soxla wi. bi mu amoon ci njiitu réew mi. soxla bi moo nekkoon sax egg ci njiitu réew mi lu gàntaloon audience bi aussi. soxla bi moo nekkoon bëgg rek président Macky Sall wañ loxoy justice bi pour Tahibou Ndiaye ñu mën ko génn si li nga xam ne si la nekkoon loolu nag. boobu ñu ngi ci coowal traque des biens mal acquis. ci coowal traque des biens mal te si ñu doon topp yëpp à ma connaissance man. tey bu Ndiaye rek mooy ki nga xam ne moom moo si signé woon benn PV de médiation même bu fekkee ne après mu ngi ko doon bañ. maanaam liñ koy tuumal da ko bëggoon a fay. waaw kay d' accord hmm. ba ne dinaa fay génn waa léegi. léegi kooku yow bu fekkee ne dagane nga ne yaa gën a set ñëpp yaa gën a baax yaa dàq jàng ñëpp yaa mën ñëpp ba pare ngay dem di jaar si suuf di bugg défendre koo xam ne moom si boppam accepté na def na lu naka su noonu ba alal ji ñu koy topp sax genn wàll gi mën na ko joxe loolu c'est contraire ak li nga xam ne kanam gi nga xam ne xar kanam gi nga xam ne moom la Ousmane Sonko di wan Sénégalais mhm. te nag il faut que yu mel noonu ñu koy bàyyi xel. léegi eh, ñu koy ñu koy ñu koy bàyyi xel. yow na nga bu continuer di di weddi euh, dana gën dugal boppam ndax da ngeen yor leneen li nga xamante ne mën na indiwaat ay firnde lu bokkul ak enrichissement bi ngeen fësal jamono ji euh, te fan yee passé. non xam nga moom si boppam mooy dugal boppam parce que yii ma leen wax nii yëpp. moom moo ko waxal boppam moom moo fi wax ay secrétaire général honoraire te ñëpp xam nañ ne ñun ay sénégalais dañ jàng nañ tuuti et puis syndicaliste yaa ngi fii ku mel ni conseil économique social et environnemental ñu ngi doon wax présidente honoraire bu Aminata Tall ban mission la mën a doxal actuellement conseil économique social environnemental bu Aminata Touré yëgul honoraria mooy dañ la koy sagale bu ñu amee cérémonie nga ñëw toog moom moo wax loolu moom moo wax ne da doon contrôler président Macky Sall ba gis ay luubal yi mu def si affaire suuf fayul impo mais ku mel noonu koy contrôler ba àgg foofu noonu si contrôle bi nooy mën a jaare si suuf bu ko ko gis dama ne lu muy gën a wax moom di gën a dugal boppam li tax mu mu perdroon les pédales li tax mu tàggoon ak sogoom bi Mansour fay évoqué affaire audience bi mooy moom xam na la ci biir audience ba xam na mu fa wax xam ne la mu doon ut si si audience bi te jour dina ñëw bu continuer jour dina ñëw moom si boppam xam nga waaw da ngay jël sa mbaal di ko wëndeel di ko wëndeel di ko wëndeel di ko wëndeel ba far këpp ko sa bopp loolu moo ko nar a dal si li nga xam ne ni mooy audience bi man su doon may moom bi Mansour fay waxee affaire audience bi da nga koy banaliser rek nga jàll dem si yoon parce que moom xam na li si xew yëpp xam na lu mu si doon dox yëpp te loolu c'est totalement contraire ak visage bi nga xam ne ni moom moo la ko moom la moom la bëgg a si kanamu sénégalais yi di ko doxee ak arrogance ak saaga yoo xam ne nii man loolu nag si li ma gën a maanaam li ma gën a maanaam sonal si mbir mi mooy loolu. mais yow est-ce que yow yow ci sa wàllu bopp aussi. est-ce que amoo fenn fi nga xamante ne war nañ la faa mën a ŋañ. ndax yow yaa euh, provoqué audience ba. Mm. te nee nga lii ak lii a taxoon te loolu nee nga du lu jaar yoon. xam nga euh, wax naa la ne man lépp lu ma def dama koy assumer Ousmane sonk bu toogeek man ma am relation yi am ak man mu joytu ma bëgg gisam Macky Sall man ma ko yóbbu directement si Macky Sall j'étais le secretaire général de Mansour Faye ma jàpp ne su ma jaaree si Mansour Faye moom dina àgg si Macky Sall. ba ba muy sàkk audience bi. xam nga lu muy wuti. xam wala xamagoo lu muy wuti. non xam naa lu muy wuti. xam naa lu muy uti mais xaw ma woon ne noonu la ko buggee parce que tamit jàppale nit si côté boobu mën na nekk nga bàyyi ba nga wax ak moom wax président Macky Sall par exemple wax ko li nga bugg président Macky Sall bu juste yi defee liggéeyam ba pare am na pouvoir yoo xam ne c'est ses pouvoir constitutionnels ñoom grâce a ngi fi médiation pénale boobu mu ngi fi yeneen ak yeneen ak yeneen ñu ngi fi bu boobaa président Macky Sall mën na utiliser ses pouvoirs yooyu nga xam ne constitution bi moo ko jox pour jàppale Ousmane Sonko si lu ma bëggoon mais quant à weñ loxo magistrat yi ne coûte que coûte procédure bi dañ ko war a arrêté man loolu su ma ko Ousmane Sonko waxoon avant muy dem si ko loolu moom président Macky Sall du la ko defal jamais si àdduna donc audience bi problème bi si njëkk mooy weddi bi ba pare accepté ko mais weddi bi nag comprendre naa ko ni mu tiitee ak arrogance ak saaga bi mu si boole mooy ne moom xamoon ne li si biir bis bu génnee c'est pas bien pour euh, image ak par rapport ak li muy wax sénégalais moo tax ma dellu siwaat si joxoñ bi nañ moytu sunu dëkk biir ñuy joxoñante maa yaa dakaa bon maa la gën a baax maa la gën a set beneen bi mooy ñu bàyyi dichotomie bi ñuy def entre haut fonctionnaire bu décidé ne da ngay jàppale président Macky Sall sàcc nga haut fonctionnaire bu décidé ne da ngay jàppale président Macky Sall tu n'es pas haut fonctionnaire bu décidé da ngay jàppale président Macky Sall yow xamuloo dara wala daa am nëbb haut fonctionnaire nag bu dem opposition yow héros nga yaa gën a set yaa gën a baax loolu amul te cas si gën a flagrant mooy kaawu Thierno Alassane Sall bu nekkee si pouvoir bi ŋàññ yi commencé ba mu demee opposition héros yooyu noonu il faut que ñu bàyyi ñu xam ne ñun ñëpp ay Sénégalais te en il faut que am ñu ànd ak pouvoir bi am ñu dem ak opposition mais fii Sénégal léegi dafa am benn terrorisme intellectuel bu ñu bëgg instauré boo xam ne en tout cas ñu mel ni man duñ ko d' accord. léegi am na ci. loo xam ni tam euh, moo ëlëm ñëpp mooy vocal. bi nga mm. xam ni moom la la Ousmane Sonko defal ci WhatsApp. Euh, euh, ñu jékki-jékki mu génn ci mbedd mi. Mm-hmm. mooy li Mansour waxoon ne bu ne prip ñu génnee ko yëf yi génne na yaa xam mbay Euh, njiital soleil bokk ci APR moo ko njëkk a génne yi fi mujj euh, tasaaro yow nan la la Ousmane Sonko yónnee vocal ba ba mu génne itam. waaw ni mu génne moom euh, ki ko génne defe naa ne assumé na ay responsabilités ne moom moo ko génne loolu moom bu ñu koy laaj par rapport ki ko génne si domaine public bi boo leen gisee yaa xam. bay moom dina leen laaj yëfi sa téléphone la dem. yaa ngi dégg dina leen laaj di nga leen wax moom. fan la ko jëlee ay journalistes yi ngeen xëy na moom dina wax ay sources am nangam nangam mais naa li nga xam ne moo ci am mooy euh, Ousmane Sonko si boppam moo autorisé woon tout le monde ne képp ko am benn élément bu mën a prouver existence audience bi rek na nga ko génne ne yéen journalistes yi yéen ñëpp aywa dem leen ne Mansour Faye yaa ne woon prip nee naa prip fukki junni yoon journalistes yi dem leen seeti bépp élément de preuve boo leen mën a am pour indi na preuve bi am na loolu amul wax ci lu lu lu ji lu dul jeex du xaaj Yakham Mbaye c'est un journaliste il a les preuves pour ma wane ne euh, maanaam audience bi am na ba mu ko defee tamit. Ousmane Sonko si boppam dellusiwaat na. justement parlant de preuve euh, parce que li nga wax nii euh, yu bëri mbirum tuuma la. Hmm. te firnde gi desandi naa leer ndax la nga ne moom la Ousmane Sonko yi soxla woon ak li ko taxoon a jóg est-ce que am ngeen firnde yi dëggantaan ngir askan wi lépp leer ci ay gëttam. xam nga dama lay wax ne euh, kii xam nga làmmiñ dafa dafa doy waar euh, français moo koy wax xam nga philosophie traducteur traître boo waxee rek feeñ olof yi ñoo koy wax ku wax feeñ moom mooy wax def si live am ba sa fin ba mu ne xam naa bu subaa sax dinañ ne lii moom a indi loon lan moo tax waxul ne bu subaa sax dinañ ne xam naa ne li may kaas terme sud bi wala li may dossier yi ma yor si terme bi wala bu subaa sax dinañ wax ne li may wax si inondation yi moo tax wala bu subaa sax dinañ wax na lii ak lii ak lii bi ma nekkoon syndicat bi li ma doon kaas moo tax lan moo tax moom mu désigné nii rek ci xel mi nii rek ne bu subaa sax dinañ indi affaire bu njaay bi. oui mais yow. yow dèjà ne nga mbiru Tahibou Ndiaye nga. waaw léegi léegi loolu ok mais dama la bëgg wax ne loolu rek dèjà firnde la. traducteur traître ku wax feeñ man wax naa ko moom wax na ko te boo leen poussé ba si biir di ngeen xam ne. loolu exactement moo nekkoon préoccupation te loolu moo tax tamit bi Mansour Faye ne audience rek mu naaw commencé di saaga nit ñeeg ak di weddi. Mhm. mais Sénégal daal man jàpp naa ne boo yëkkatee sa loxo ne damaa bëgg a jiite nit ñi war nga si boole tamit ne jël ay ses responsabilités bi si nekk mooy ñun ñëpp ay nit lañ parfait moom amul si Sénégal fii dangay am si yu baax am si yoo xam ne nii naka si dul noonu la. yu baax yi ngay fexe toujours di ko yokk nag di ko muy gën a dem si kanam naka si lu nooy ngay fexe toujours noo koy wàññee te moytu di joxoñ nit ñi parce que ñun ñëpp ay sénégalais lañ on a été éduqués daal les mêmes condition ku nekk da ngaa jóge si kër nekk ambassadeur kër googu saaga yi nag ak xaste yi ak man maa gën a baax te ñun ñoo bokk fi ñu jaar yëpp xamante nañ bu baax xamante nañ bu baax dañoo génnandoo école. defe naa ne si carrière administrative loolu mooy leen euh, Ousmane Sonko ku ne xam na ne am na alal ndax mi ngi politique gis nañ moyens yi. da ngaa jàpp ni lii mu am ni euh, ci koom ak diisaayu loxoom ci wàllu woowu euh, jaaduwuta Ousmane Sonko de 2016 ba tey liggéeyul waaye mu ngi def ay activités comme ni mu ko ni mu ko buggee kon mënul wax ne ñun ñi nga xam ne boobu ba tey ñu ngi liggéey te yàlla def na tamit poste de responsabilité yi ñu ñun si administration bi. moom yàlla may ko chance mu occupé yi ponk ci mel noonu Ousmane Sonko masul nekk directeur masul nekk chef de division masul nekk directeur général masul nekk directeur de cabinet masul nekk secrétaire général masul nekk ministre masul jiite ñaari nit ci administration pendant quinze ans de service kon mënul wax ne moo ñu gën a set moo ñu gën a compétent moo ñu gën a maanaam war ñoo mën a ëpp ay moyens yu mu politiquer ñun ku si nekk boo mayee sa voisin benn saaku ceeb sax mu ne da nga koo sàcc façon boobu laa wax ne il faut que ñu bàyyi ko si politique. ñu respectante ku nekk vision ba nga am position ba nga am fa nga féete nga jàpp ne foofu yow foofu nga féete nga féete fa nag en toute responsabilité te ñeneen ñi nga may leen jàmm yaa ngi dégg bu bu élection jotee nag ku mu neex nga voté ki neex mais saagante bi daal xastante bi ak jàpp ne man maay Mamadou xaw ma na ñeneen ñi ñooy xaw ma ni ko olof yi di waxee. façon boobu laa ne loolu baaxul. jërëjëf Cheikh Issa Sall. magistrat jiite ADM euh, agence de développement municipal jiite itam kuréelu politique gi ñu naan am dem te ne ca Mbour tey jàppale Macky Sall yow yaay ki fekkee woon gise baak Mansour Faye ak euh, Ousmane Sonko euh, ci coow la ca toftalu fan yi jërëjëf El Hadj Georges Diop ci Diop jàngeen jëf mbokk yi kàddu gi léegi ñu jëbbal ko laaj Hadj Ndiogou Diène ak Astou Mbène Thioub bu jaajëf yéen doog jàmm.